mais le PSE xam nga am Macky Sall lu ko nit mën a reprocher xëy na nit mënul mat un régime ne pas être parfait mm-hmm. il y a beaucoup de choses à par exemple par rapport à la CNU les gens ont des ont am nañu ay reproches ñuy def moom au président Macky Sall moi je suis un un maquilliste sans être dans un parti politique parce que je l'ai je n'ai pas voté pour lui en 2012 hein mm. au premier tour c'est au deuxième tour que j'ai voté pour lui mm. mais sincèrement ce qu'il a connaissant la situation de référence en 2012 avec 900 heures de déficit d'électricité mm-hmm. hein un pays parce que un pays sans électricité c'est un pays à genoux mm-hmm. les difficultés yoo xam ni même son prédécesseur lui-même moo ko waxal boppam ni ñii dans trois mois ils ne paieront plus les salaires mm-hmm. parce que tellement la situation était difficile mais comme tu l'as si bien euh, rappelé il a pris le taureau par les cornes sans tambour ni trompette sans déclaration euh, etc etc tonitruante etc au bout de quelque temps il a redressé la situation du kawe njox ñëpp commencé di def ay di poser ay actes yoo xam ni vraiment sur le plan économique nga jóge ci 1,8 pour cent aujourd'hui ngay dem bàyyi fi 7,1 pour cent vraiment ci wàllu liggéey ak koom-koom ak yu demee noonu ak situation yi fi jaar yëpp une pandémie pendant deux ans le monde était confiné dans une prison le monde entier nous avons été plus résilients que la France que les États-Unis par rapport à cette pandémie nga ñëw wutu guerre Ukraine bi ñëwati encore imposé wu ci yow mais malgré tout cette tendance a été maintenue les gens ont bien travaillé de ce point de vue peut-être que il y a eu des problèmes ailleurs par rapport à la gouvernance la bonne gouvernance ça c'est c'est des choses que personne ne peut Macky nit ku nekk ak ni la yàlla bindee Macky peut-être li ñu koy reprocher mooy yërmandeem bu ëpp ci ñenn ñi bu xasee ba xam nit mm-hmm. wala mu am ci yow cofeel wala yu demee noonu il essaie wala demee noonu ça même ses partenaires le reconnaissent. Tout à fait. nest pas mais d'un point de vue global ñoom li ñu waroon def rek mooy ñëw gis ni Sénégal mi ngi nekk sur une bonne voie euh, nekk un pays lu bees am réalité bu bees un pays pétrolier et gazier. Hmm. ñu taxawal affaire yi mais ñëw taxaw naan dañuy renégocier yëpp dañuy def nangam nangam ces gens là bu ñu deful attention ils ils vont retarder encore le pays de dañ koy delloo ginnaaw 60 ans alors que notre pays. mënoo ko comparer ak yenn genre pays yi c'est pas possible en Afrique suñu nous sommes à des années lumière de ces pays là bokkuñu structures yi bokkuñu ah gouvernance bi bokkul nu ñu ko xati sax euh, l'expérience démocratique bi ñu am ak ñoom bi ñu am du benn les possibilités yi fi am ak ya am fële du benn donc ñun Sénégal vraiment ñun dañu dañu war a roy ci ñun hmm.